mbokk yi nu bokk ànd sant sunu borom subhanahu wa taala ci sangam ba seydina muhammad sallallahu taala alayhi wa ñaan yàlla sunu borom subhanahu wa taala ca yërmandeem ca màggam nga ca tedd ngam nga sëriñ tubaa alhaaji cheikh sidul muxtaar yàgg fi loolu te waaye ñaan suñu borom subhaanahu wa taala sëriñ jëmb maam Cheikh Rahane Fall Babul Muridina yàgg fi lool te noonu lañ ko ñaanee itam sëriñ Ahmadul Mokhtar ibnu Cheikh Mouhamadul Moustapha al Karim moom itam mu yàgg fi noonu lañ ko ñaanalee ci njabootu sëriñ Daaru Xasan Ndiaye sëriñ Mbacke Fat sëriñ Ndiaye ne ca bopp ba moom itam ak taalibe sëriñ Touba yëpp góor jigéen yàgg fi lool te wér mbokk yi. am mbégte saa su di ànd ak yéen di am mbégte di. njukkalante ci warugar wi wi sunu borom digal muy fasalu ahli zikri in kuntum laa taalamu mu mel ne tey dañu am mbégte mu yaatoo yaatu waxtaanee teraange ji sunu borom defal ñun umma islamique jaar ko ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam muy alquranul karim fekkoon fi ay téere yu bari ñu mën caa jukki ñeent tawreet sunu borom subhanahu wa joxoon ko Muusa kalaamullaahi Zaboor sunu borom subhanahu wa taala joxoon ko yonent yàlla Daawuda Injiil sunu borom subhanahu wa joxoon ko Seydina Isa mu mel ne ñoom ñëpp kenn ku nekk ci ñoom sab ma nga wàcc ci weeru koor kenn ku nekk ci noom sa téere ba ñu ko wàccee ci yow dañu koy jëmale ci saw xeet ngir nga soññu leen ci ndigal sunu borom subhanahu wa taala waaye li nga xamante ne mooy sunu teranga di terangay umma islamique bi yëpp di jullit yëpp muy alquranul karim nu bëgg cee mos tuuti ci barkeb seydina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam sunu borom subhanahu wa taala terale ko jullit yi mu wàcc tam moom itam ci weeru koor ñu di ci sargal jullit yépp ak fu mun a ne ak ku mën a doon nu nga la ci sargal bu baax a baax a baax ci barkeeku weer bi ñu nekk muy shahru ramadan mubarak ci weer wi ci la sunu borom subhanahu wa taala yebal alquran boo doon ab karawaan da wax ne la mu war a àndal yépp ci bagage te soxlawoo ko boole ne ko ak moom waaye mu jël ko jox ko jibril alayhi salaatu wasalaam moo tax sunu borom subhaanahu wa taala wax ne inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu la xaafizoon kazalika mu wax ne ma faraxna fi kitaabi cheyin kon alquran karim di sifaatun min sifaatillaahi loolu nag yaa ngi koy déggee ne lépp loo xamante ne ni sa yitte la lépp loo xamante ne ni sa bëgg-bëgg la lépp loo xamante ne ni sa soxla la lépp a ngi ci biir alxuraanul karim sunu borom subhaanahu wa taala dëxañ ko ci biir waaye jëlub juñu rek daal di koy wax daal di wax ne alif laam miim zalikal kitaab laa rayba fihi hudan lil allazina yuminuna bi xayb wa shahaada kon mu mel ne kon xëybu na ko sunu sang ba di seydina muhammad salallahu taala ci ay tartar yu xaw a saf lool yu metti àggoon na ci di wax ne yaa ayyuhal muzammilu hum hum hummi layla ila xalila yaa ayyuhal murassiru ila axirihi su daa wàcc ci kawam na muy metti ak na muy tare xam ngeen ne andi na ko su ko moom jibril alayhi salaatu wasalaam daw na dem ca gannaaw xadijatu ma ngay jaaxle ba keroog borom subhaanahu wa ko gindi moom yonent bi mel ne suñu borom subhaanahu wa ko moom alquraanul karim waaye mu wàccee ko wàccee ndoowu ko ci kaw yonent bi salallaahu alayhi mu tuur ko ci ay ndog dogaat mu wax anzalahoo jumlatin waxida waaye kon ngay dégg ne suñu borom subhaana taala fu mu waxee nazal la nazal nazal rek dafa wax ne euh, tuur na ko benn muy wàcc na ci ay aaya ak ay saar moom alquranul karim mu jaar ci jibril alayhi salaatu wasalaam mu di ko jukki ca kem la muy antan ak li muy tollool saa su ne di ko jox yonent bi sallallahu taala alayhi wa mu di ko dégtalaat ñi nga xamante ne ñooy xeeti yi njëkkoon ca saxaabata rasul yi wàcce na ko ci ay saar moom alxuraanul karim téeméer ak fukk ak ñeent muy ci baatu tubaab 114 yoo xamante ne wàcc na jaar ci dënn yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu digtal mu digtal ko saxaaba yi waaye 114 yépp nag wàcc ñu bëccëg cent quatorze yëpp itam wàccuñu guddi cent quatorze yëpp itam wàccuñu makka waaye cent quatorze yëpp itam wàccu na medina medinatul munawwara yi wàcc makkatul mukarrama juróom ñett fukk lañ ak juróom muy quatre vingt jot di ko lim du fi am waaye ñu njëkkante ak waxtu wi rek xanaa ñu junjal leen ko noonu ba beneen yoon ñu ci dugg ak benn benn xamal leen daal juróom-ñett fukk ak ñaar juróom-ñett fukk ak juróom ci ay saar wàcc nañu makkatal mukarrama waaye ñaar fukk ak juróom-ñeent wàcc nañu medinatul war jaar ci dënn yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu di ko dëkkal saxaaba yi ñu koy bind ñi ci ay der fenn fu waay mësa am rek fa nga koy bind ba keroog Seydina Usmaan karamallahu wajhahu dajale ko ñoom yépp nag def ko kaamil mu mat sëkk yi wàcc bëccëg quatre-vingt-trois lañ juróom-ñett fukk ñaar ñett quatre-vingt-trois saar ñu wàcc ci bëccëg gi am na yoo am na yoo xamante ne nag guddi la daa dikkal yonent bi alayhi salaatu wasalaam jibril di ko ko andil wàcc nañ ci ñoom limu euh, trente muy fanweer ak benn ñoo wàcc ci guddi gi kon mu mel ne su ma ko mu baamuwaatee ñu wax ne saar yi lañ téeméer lañ ak fukk ak ñeent juróom-ñett fukk ak juróom ñoo wàcc màkka ñaar fukk ak juróom-ñeent ñoo wàcc medinatul munawar juróom-ñett fukk ak ñett ñoo wàcc ci bëccëg gi waaye euh, fanweer ak benn ñoo wàcc ci guddi gi mu mel ni kon sunu boroom subhaanahu wa taala teral na xeetu ummati seydina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam te teraanga jooju yépp nag ñëw ci biir alquranul karim muy téere boo xamante ne ni jullit yépp war nañ koy safoo di ko ndamoo alquranul karim mooy tur yi nga xamante ni moom la ko ñëpp gën a xamee waaye ay turam bari nañ mu mel na rek comme doomu aadama yi mel ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mel ne sunu borom subhanahu wa taala moom sunu boroom moo teral alquran terale ko umma seydina muhammad utul ko ay tur yu bari ñu ko gën a xam ci alquran di ñëw ci baatu xara xara may lu ñuy jàng lu ñuy jàng lay taqale dëgg ak neen moom alquranul karim bokk na ci turam nuur muy baatub leer kenn ku ne xam na ne leer gi nekk gi nekk ci biir alquranul karim sunu borom subhanahu wa bu ko waxuma sax téere bi yépp waaye yenn ñett ay aaya rek su ko bicc woon mu yaatoo kon leer gi mën naa lakk adduna waaye sunu borom subhanahu wa taala woyofal na ko jaarale ko ci dënn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jaar ci làmmiñam mu dégtal ko sahabatu ba kenn ku nekk ci ñun tey mën koo takk def ko ci sab dënn tey ñu ko waxtaane bokk na ci turam alxaq muy dëgg dégg ngeen sëriñ Tuubaa xaadimu rasul waaye na ko dafa wax ne mu min alxaq jaa alxaq alxaq fi sax bi mu mel ni kon dangay laajte sax ne ndax ñeent dëgg am déedéet ndax dangay laajte ne ñett am déedéet mbaa ngay laajte ndax ñaar am déedéet benn rekk la muy alquranul karim moom la jubloo wax foofu waaye fekk ka nga xamante ne ni moo ko yeble woon mi sunu borom subhanahu wa taala di xaq ju njëkk ji waaye ci ki mu ko yebaloon mu seydina muhammad salallahu taala alayhi wa sallam muy ñaareel bi waaye ci ki nga xamante ne ni moom la yeble muy alquranul karim muy ñetteel bi ak ki nga xamante ne ni mooy jibril alayhi salaatu wasalaam mooy ki doon indi ci moom mooy ñeenteel bi kon daal moo wax ne min al xaqi jaal xaq alxaqu fi sax bi kon Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul nga mën a wax ne moom mooy alquraanul karim moom dem mooy borom alquraanul karim dañ ci ñëw incha allahu rabbi kañ la wàcc waxoon naa ko léegi ci tàmbali waxtaan wi ci waxtu wi nu toll di waxtaane alquraanul karim ci jamono jii la wàccoon ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa muy weeru koor ban waxtu la wàcc ci weeru koor ndax bëccëg gi la déedéet kon sunu borom subhaanahu wa taala mu mel ne kon teral na googu guddi kon ba wax ko nag mu wax ne inna anzalnaahu fi laylatul xadr wa maa adrayka maa laylatul xadr laylatul xadr xayru min alfi shahri mu ne tanazalul malaikatu wa ruuhu fiha bi izni rabbihim min kulli amrin salaamun hiya xatta matla fajri sunu borom subhaanahu wa taala ma ngay biral nag kay nga ji nga xamante ni defal na ko xeet Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gannaaw leen waxee ne maa leen màggal maa leen teral maa leen yëkkati bind leen mboole leen ci xeet yi gën ci xeet yi wax na ko lépp ci biir alxuraanul karim mu wax ne la xadd xalaat na insaana fi axsanin taqwim waaye mu wax ne summa radadnaa asfala saafiliin gannaaw wax ne wala xadd karam naa bani aadama wa amal naa fi barri wal bahri wa a minal tayyibaati ila axiri aaya kon sunu borom subhaanahu wa taala wàccoon na ak xeetu ummatu sayyidina Muhammad sallallahu taala wàcceel na leen alquran ci guddi laylatul xadri mu jaar ci dënn yonente bi sallallahu taala mu mel ne kon guddi googu dégg ngeen li ci yonente bi sallallahu alayhi wa te sunu sëriñ sunu yaakaar si Ahmadul Xadim saa bu weer wi teroo wan jumla boo xamante wañ nañu junj boo xamante ne ni wan nañu mbedd moo xamante ne ni ci mbindam war ñoo xam ne kon sunu borom subhaana wa taala teral na xeetu sayyidina Muhammad sallallahu taala alayhi wa waaye ma ngi ko jaare ci màgg xaysun karimun taqiyun naasiun wariun nafun nafoun mafatihul huyobaati kooku mooy Sëriñ Tuubaa xaadimu rasul te mag ma waxoon ne sàkkal bàkkiyu la jëy mbaari um faddaluxoo ala kasir mi man xasu maziyaati bis boobu mu ñu dëgtal nag saa su mu ngi dajeeg guddi ajjuma muy laylatul xadri incha allahu rabbi bu weeru doxee ba toll ci ñaar fukki fan ak benn tabarkàlla nañ ca bàyyi xel xam nañu ne kon mooy laylatul xadri bi mi ngi wàccoon alquran kon ci guddi googu ci dënn yonente bi sallallahu alayhi wa jaar ci jibril alayhi salaatu wasalaam yàlla nañ ko yàlla gën a fayal mu mel ne kon mu nga wàccee ci pàkk bu tedd pàkk bu mag pàkk boobu ñu wax baytul xizza moom laa la waxoon léegi mu ne anzalahu jumlati waxida suñu borom mel ne subhanahu jibril alayhi salaatu wasalaam am na fu mu ko làq léeg-léeg mu ñëw indi ca kem la muy antan ca waxtu woowu nga xamante ni ci la ko indil muy alquranul karim moo tax mu ne anzalahu jumlata waxida moom alquranul karim xanaa rek ñu njëkkanteeg waxtu wi ndax li ñuy waxtaan ni dafa yaatu lool te neex mooy teraanga ji nga xamante ne ni moom la Sëriñ Tuubaa doon wax naan yaa kitaabal karim yi anta xalili wa xabibi wa xabla kunta tabibi hey yow téere bi yàlla bi yaay sama xarit di sama soppe amuma beneen soppe bu dul yow yaay ki nga xamante ni yaay sama wéttal yaay sama gànjara yaay sama trésor yow alxuraanul karim sori na ci lool moom Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul jukki na ci jug téere bi ba tey def ci xasidam yi nga xamante ne ni moom la doon taggee yonente bi sallallahu taala alayhi wa waaye rek nu jéem a rek wax rek aaya yi nga xamante ni mu njëkk a wàcc juróom lañ yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy jàngaloo naan ko jàngal ca suratul baqara ma ngay wax ne iqra bismi rabbika allazi xalaq xalaqa insana min xalaqin iqra wa rabbukal al insana ma lam ya'lam juróomi aaya yi ñoo njëkk a wàcc ci yonent bi sallallahu wàccin wa kenn ku ne xam na ne jafe na lool mette ko ne iqra wax mu dellu waxati ko ci jafe-jafe yu moom lay wax noonu waaye daal liñ ci bëgg jàngale rek ñu wax xamal jaami yàlla yi ne leen wàccee na ca baytul xizza ca guddi gu mag googu di guddi gi laylatul xadri wàccee na juróomi aaya moom jibril alayhi salaatu wasalaam noonu ma leen ko waxoon anzalahoo jumlata waxida jikk ko tëb xëpp ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam fexe ba mu xam ko jaarale ko ci dënnam mu wax ko dëkkal ko saxaabata rasul yi ak yu jullit yépp bu ñu la laajee ban aaya moo mujjee wàcc waxal ne wa taqoo yawma turjaxuuna fihi ila allah sunu borom subhanahu wa di wax ne ay bu leen di fàtte bis ba nga xamante ne ni moom la ñuy dellu ci sunu borom bis boobu bis bàyyi bis bu mat a bàyyi xel la te pourtant boo te ubbee téere bi mu nga ca digg ba waaye sunu borom subhanahu wa taala moom lu mujjee wax ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam wa taqoo yawma turjaxuuna fihi illallah bu leen di fàtte bàyyi leen xel bu leen koy dëgmu bu leen koy fenati bàyyi leen ko xel ñu ne ko lan mu ne bis boobu nga xamante ni moom ngeen jël ci si man joxewoon na ci ndigal sa baax ne irji'i ila rabbika raadiyatan mardiya fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati wax na ci ba tàyyi soññe na ba tàyyi xam leen ci ba tey saay su ne ñu ànd ak sunu mbokk ci ñuy dund gunge ko ci ci ca Almeria denc ko bàyyi ko yàlla sunu borom subhaanahu wa taala xam ne la ko yàlla waxoon te wax ñu ko mooy daal yéen maa ngi leen xamal na yéen ñëpp ci bokk yam muy mag di ndaw te buy ñëw du ñëw ci waxtu wala neex amaana buy ñëw du ñëw ci waxtu wa nga koy jege amaana buy ñëw du ñëw ci waxtu wala saf amaana léeg-léeg mu fekk la ci projet ñu ci bëri al mawtu yaati baxdatan waaye daal ñu ngi leen di xamal rek ne kullu nafsin saayihatil mawti moo taxoon suñu borom subhanahu wa taala dooroon junjee ci mujjantal ga na yonent bi salallahu alayhi wa sallam waxal xeet wi nga fi bàyyi waxal xeet wi ma la boole loon wax leen ne wa taqoo yawma turjaxuuna fiihi ilallah bu la laajee ban saar moomu ja waxal suuratu naas izaa jaa suuratu nasri mu izaa jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta naasa yadxuluuna fi diinillaahi afwaajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba mooy saar wi nga xamante ne ni mu complet la saar wi mujjee wàcc waaye maa ngi lay yëgal ne la sunu borom subhaanahu wa taala bëgg gi mu bëgg xeetu ummatu sayyidina muhammad sallallahu taala alayhi wa moo tax ba mu dajalee téere yooyu yëpp nag reconnaître na ko ci seen biir mu injil reconnaître na reconnaître ko ci seen biir muy zabuur reconnaître na ko ci si biiram muy tawreet moom am xaal moom alquranul karim kon mu mel ne ak matam dikk na layal ñun ñun ñun dikk na layal ñuñ zaboor dikk na layanteeg ñuñ tawret saa su ne danga ciy dégg muy nettali li xewoon ca Muusa wala Isa wala Daawuda yaa Daawuda inna ja'alna xalifatun fil ard tabarkalla mu mel ne suñu borom subhana taala kon terangam jooju yaatu na moo tax buñ la ne ban ban saar gën ci saar yi waxal fatihatul kitab yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne asabu asabon masali mu ne fatihatul kitab juróom-ñaari aaya yooyu nga xamante ne ni sunu borom subhanahu wa taala na ko muy alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المحجوب عليهم ولا الضالين آمين alhamdulilahi rabbil alamin ak cant bu matee ak cant boo waree ladde kenn ko yeeyoo mi sunu borom subhanahu wa taala moom mooy borom yërmande ji moom moo yeyoo yërmali te yor moom lay faral di wayal saa su ne wayu tedd bi may way ma bindoon ko di wax ne bismillaahi kon nuy tàmbalee ci buur yàlla ndax moo di buur ku dul moom doo fi buur dañ koy sargal ndax mooy boroom nguur moom mooy borom asamaan ak suuf te moo di borom àddina ak di ci biir moom laahu du mës a jeex est-ce mooy kun fa yëkkoon kii mooy borom jabaloot ak malakoot bàkk leen ko moo di buur foo leen koy misaal passé na ko loo leen mën a xalaat romb na ko faalun li ma yurid mooy ki ko sañ keneen ku def leneen des na la joxoñ kon mu mel ne saar wi gën moom mooy fatihatul kitaab moom mi nga xamante ni juróom-ñaari aaya la am bu njëkk bi dafa wax ne Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul am na lu mu ci liggéey ma wax la ko mu ne alhamdulilahi rabbil alamin fastabihu xayrati aynama tukum bikum allahu jamian inna ala kulli shayin xadir arrahman arrahim xulillahu malikil mulki tuti mulko man tashaaw wa tanjiul mulku mi man tashaaw wa tuizu man tashaaw wa tazdilu man tashaaw biyadika alxayri inna allaha ala kulli shayin xadir maliki yawmi diin maa nansax min ayatin wa nunsaha naati bi xayri minha aw misliha alam taalam inna allah ala kulli shayin xadir maliki yawmi diin mashoo fihi bi iza azlam alayhim xaamu walaw shaa allahu la zahaba bi samhim wa absaarihim inna allah ala kulli shayin xadir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in xaaliduna fiha abadan radiyallahu anhu wa radu anhu zalika fawzun azima lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli shay'in qadir ihdina siratal mustaqim wallahu xalaqa kullu daabati min ma'i fa minhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlayn fa minhum man yamshi ala arba'in yahlahu innahu ala kulli shay'in qadir xayri maxribi alayhim wala daalin mu ne tabaaraka lazi bi yadihi mulk wa huwa ala kulli shayin xadir moom suñu borom suñu sang suñu yaakaar Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ba muy jàngale sirru faatixatul kitaab nga xamante ne ni mënees na see dekkal ku dee ci ko xam nga xamante ne ni mënees see xool la gumba ci ko xam nga xamante ne ni mënees see doxloo lafañ ci ku ko xam nga xamante ni moom faatixatul kitaab mënees na ca tukkal jamono moom faatixatul kitaab ndey téere bi moom nga xamante ne sunu borom su wa taala def na ci teraanga yoo xamante ne dégg ngeen sunu rahimallahu sëriñ Sàmbay daan wax ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne mënees na see sëf fukki junniy gileem te du tee mu des maanaam kon daal maa lay fàttali ne buñ la ne ban saar moo gën ci saar yi yow waxal ne mooy fatihatul kitab bu la nee ban aaya nag moo gën a màgg yaa ngi gis kon njariñ alquran ak alquran ni mu toll fi suñu borom subhanahu wa mu fonkal ko boppam bu ñu la ban aaya moo gën a màgg ci alquran waxal ne ayatul kursi mooy kan allahu laa ilaha illa huwa alxayul xayuum laa taxuusuhu sinatun wala nawm lahu maa fi samaawaati wa maa fi l ard man za allazi yashfau indahu ila bi iznihi yaalamu maa bayna aydihim wa maa xalfahum wala yuhiituuna bi cheyin min xilmihi illaa bima shaa wazia kursiyuhu samawati wal arda wala yahuduhu hifzuhuma wa huwa al aliyul azim ma nga ci suratul baqara xam ngeen ne wax naa la ko léegi mooy saar bi gën a màgg waaye saar la boo xamante ne ni bu bëri maanaa la bu bëri njëriñ moom suñu borom subhaanahu wa taala mu ngi koy wax ne du kuy tëdd du kuy nelaw moom sunu borom subhaanahu wa taala mu ngi wax ne du kuy jayeexu mbaa kuy nelaw mbaa kuy gëmm lahu ma fi samaawaati wa maa fi l-ard wax naa ko léegi moom mooy borom asamaan ak suuf te moo di borom àddina ak biir man za allazi yashfau indahu illa bi isnihi déedéet lépp lu waay di door te dooree woo ko ci moom la ngay door mën naa bañ am njariñ ci turu sunu borom subhanahu wa taala waaye yemu ci moom aaya bi dafa bëri ay njariñ bëri maanaa ndax dafa am saxaaba bu baax bu doon wax Abdullahi ibnu Mas'ud ñi ko xamoon ci ëttu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bari woon na dafa mës a ñëw ca baytil maar fekk fa benn jinne buy sàcc kenn ku ne xam ne jinne yi seen caay weesu na lu ne jinne bi waaye moom Abdullahi ibnu Mas'ud nekkoon na ko ragal yàlla di wàlli yàlla sunu borom subhanahu wa taala daanañ ko rey sax ñoom yeneen saxaaba yi bis taxaw na di julli mbubb mi di naaw yeelem yi sew ga ñu sewoon yeneen saxaaba yi di ko ñaawal yonent bi sallallahu alayhi gis leen ñu koy mu ne ndaxam mos yéen a ngi koy ree ndax ni mu sewee ci baat waaye maanaam yi dis na lool ci baate am Abdullah ibnu Mas'ud moom yi nag moo fekk jinne ji mi sàcc ci baytil maar mu wax ak moom daal di koy jàpp jinne ji ne ko coono bi ngay rek mën naa ñàkk mu ne ko lu tax nga wax ko mu ne ko kaay ma wax na loo xamante ne nii soo ko fi waxee rek dootuma fi ñëwati kon mbokk yi nañ ci bàyyi xel mu ne ko loolu lu mu doon mu ne ko ba fi jàngee ayatul kursi dootuma doot ma fi ñëwati Abdullah ibnu Mas'ud daal di wax yonent bi sallallahu alayhi sallallahu alayhi wa sallam dama dem ci baytul maar fekk fa benn jinne bi ma ko jàppee wax na ma ne bu ma jàngee ayatul kursi dootu fa ñëwati yonent bi ne ko wax na dëgg ñoom baaxoo baaxoowunu di wax dëgg waaye tey jii moom loolu yi ma la wax dëgg la ndax ayatul kursi yu barab boo xamante ne dañ ko fay jàngee ab saay-saay dafa dugg moo xam boobu nit la ma xam bu jinne la nga xam ne kon ah, toll na ci ay xarafam cent quatre-vingt-dix-huit di secret boo xamante ne ni sunu borom subhaanahu wa taala secret bu la bàyyi na ko xel kon mbokk mi ayatul kursi yi mu ngoog mooy aaya bi nga xamante ne ni moo gën a màgg ci tabarkàlla alquranul karim te nekk ca baqara mu wax ne amana rasul ba ca fanzurna ala xawmin kafirin képp koo xamante ne nii xam naa ne wax nañ ma ne waxtu yi tabarkàlla xocc na waaye bëggoon naa mu gën a yaatu ma jukki fi lu bari bari ci ay aaya wax seeni ngëneel jukki fi lu bari ci ay saar waxtaan seeni ngëneel kem lañ ca xam waaye ñu may soññ naan ma waxtu bi daanaka xocc na waaye alquran karim toll na noonu des na ci dikkaat ay yeneen i jamono ak bu fekkee nu waxtaane ko insha allahu rabbi ma ngi la doon wax léegi ne la amana rasul boo ko jàngee ba ca fan fanzurna ala xawmin kaafirin sunu borom subhanahu wa taala dana la may yoolu boo xamante ne ni guddi gi yëpp dañ nga koo taxawee di ko naafile dégg ko noon kon mu mel ne la mag ña daa def di guddi dundal guddi ñu daa den wax ne ñoom kat seen guddi ya daan nan ko dagg di ko julli di ci tuubal sunu borom subhaanahu wa di ci julli ci sang bi di seydina muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ku mel ne amana rasul boo ko jàngee rek guddi gi mel nga ne ku ko fanaanee taxawee di ko naafile naafile guddi nag njariñ yi ci nekk bari na naafile guddi nag xéewal yi ci nekk bari na waaye rawatina weeru koor yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne su fekkente ne yow yàlla sunu borom subhanahu wa taala yéena la ci genn guddi ci weeru koor mu mel ne yow da nga doon nelaw ba mu yàgg rek loolu ñuy wax ni dal la nga wëlbati ko rek daal dina mënatumaa nelaw waaye sam xel daal di daw jëkkante ak sunu borom subhanahu wa daw ca moom daal di ne la xaaral rek nga ma jóg kon def ay naafile boobu boo ko xalaatee ba wax ko rek yow bokk mi yëgal ne ab malaaka tiim na la di la ñaanal na la xum aywaay e jugal ci yërmande sunu borom subhanahu wa taala ji aywaay e jugal fexe dabu xéewal sunu borom subhanahu wa wax nañu ne ba fekkente ne jug nga ca waxtu woowu boo ne ñokket xëcc sa mbubb laa di sol bopp ma dana ñaan ne yàlla suñu borom subhanahu wa taala ay waaye sa jàmm bi dimbali ko bu boo ëllëgee càngaay yi daq ci càngaay ya mu am ko ndax man ñi kat tey jii daf ma fas yéene sol ngir ñu jàkkaarloo mu jaamu la donte am ma ci njëriñ ñu ne bu fekkente ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bu fekkente ne jug nga ba sol sa mbubb xëcc sa dàll sol ne na ba solee dàll wi dàll daan suñu borom subhanahu wa ay waay bi nga xamante ni sol na dàll bi fas yéene dem waaji ngir ñëw mu jàkkarloo ak yow jaamu la ci guddik weeru koor gi yow sunu borom subhaanahu maa ngi lay ñaan ba bu ëllëgee yi na ko dëgëral ba am benn jafe-jafe nee na du ci ndox satala gaa ngi sunu borom subhaanahu wa ak ndap lu mën a doon bu ëllëgee yow sunu borom subhaanahu wa duyal ko ca ca dexu kaw saraga ba nga waxoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko inna ataynaaka al kawsar dex googee nga xamante ne ni du jeex ci moo xam bu dee am njar la du jeex moo xam bu dee sàngara la du jeex moo xam bu dee ay jus la jeex moo xam bu dee lu mën a doon ci nuy naan na nga ko ca duyal mu naan ba doyal man mi nga xamante ne tey mën na def ci ndox mi fas yéene jàpp waaye déglul mbokk mi yow mi nga xamante ni yaa demoon jàpp njàpp ma dalee ñaanal sunu borom subhanahu wa taala ci la teg sunu borom muy sell nga ba nga sell ba faaw sell ci yiw nga sell ba faw ci yërmande sunu borom subhaanahu wa waaye yam ca boo ñëwee ci nekk ba nga nekk di jàng di di fas fas yéene julli moo xam ñeenti rakka moo xam rakka yi nam mën a toll déglul yow mbokk mi néeg baa nga naan sunu borom subhaanahu wa taala na nga ko yaatal bàmmeelam mu yaatu lool ni nga ko diggee jullit bi nga xamante ne nanguloon na la ni nga ko diggee jullit bi nga xamante nii Euh, daana daana appliqué li nga xamante ne moo di ak mbilitam mooy lan fa ab bàmmeel ba na yaatu ba fu gisam yam ay mbokk mi kon yaa nga yëg ne kon naafile guddi weeru koor wala naafile guddi yi am na solo lool kon sunu yoon sunu sang sunu yaakaar seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne képp koo xamante ne ni jàng amana rasul yow yëgal rek ne ba ca fantul fanzur fanzur fanzur ala kaafirin fanzur na ala kaafirin ala xawmin kaafirin yow daal yëgal ne taxawee nga guddi yëpp guddi ga guddi mu mel ne yow mu fanaanee naafile di sëgg mu nekkoon suuratul ixlaas karim mooy ceer bi alquran bu doon ñeent la ñetti yëpp mooy ixlaas Yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ne képp koo xamante ne ni tële nga xat na ci yow ba mënuloo jàng téere bi yépp jàngal ñetti ixlaas dana taxaw taxawaayu ñetteel bi dana sori lool mu mel ne suñu borom suñu sang suñu yaakaar Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bind na ci ne allahu min kulli karimin akramu man ammahu haada lahu takkarum aslim lahu kullaka an imani wala simi lixsaani li rahmani wajihu bi shukri bila kufraani tuk fa isaabahu maanirani kon daal ixlaas nga dana taxaw taxawaay boobu ni allah min karimi kul allah min kulli karimi karam akramu di taxawee ci taxawaayu suratul zalzala ak suratul addiya yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suratul zalzala mooy iza zulzilatul ardu zilzalaha wa ahrajatul ardu asxaalaha wa xaala insana ma laha yawma idin tuhaddisu axbaaraha bi anna rabbaka awhaa laha yawma idin yasduru naasan asatan yuraawu amalahum faman yaamal misqaala zarratin xayran yara wa man yaamal mishaala zarratin charran yara sunu sàng sunu yaakaar nee na boo ko booleeg wala xaadiyaati dabaxan wal muuriyaati xaddaxan wal muxiyaati subaxan fa asna bi naqaan wa asna bi jamaan inna insaan rabbi la kanuun ila axirihi wa aaya ba jeex nee na yow daal am nga yoolu kaamil kon daal mbokk yi kon alxuraan ngoog ma ngay yombal boppam alxuraan ngoog mu ngi koy jàpp ndalul bi alquran ngoog ci darajay seydina muhammad salallahu taala alayhi wa bañ ko jàng rek ko wóor bañ ko jàng wóorut de bañ ko am itam sa kër wóorut bañ koy tiim di ko xool donte mënoo ko tiimal araf yi di xool suñu borom subhanahu wa taala xëyubam ko yaatu na ëpp na lool nañ ci ñëwaat ci benn jotaay incha allahu rabbi mu ne bu fekkee da ngaa muslu ci lu mën a doon loo ragal yaa ngi cee muslu jàngal mahoo fatiha fa jàngal falaxi ak naas xola onze bi rabi falaxi min charri ma xalaq wa min charri xaasiqin ida waqab wa min charri nafasati fi lxoqati wa min charri xaasidin ida xasar xola onze bi rabi naas maliki naas ilahi naas min charri waswasil xanaas allazi yuwaswisu fi suduri naas min aljannati wa naas mbokk mi sunu sang sunu sëriñ sunu yaakaar seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na su fekkente ne jàng nga faat falixi ak naas ñetti yoon yëgal na yaa ngi muslu raay sa kanam mat na muslaay ci lu mën a doon loo ragal moo xam bopp jinne la moo xam bopp nit la moo xam bu mu mën a doon ndax suñ borom subhaanahu wa taala boo gisee may wax jinne daf ñu boole ak ñoom mu wax ne wa ma xalaxtu jinne wala ins illaa li yaabudooni mu am ci ay caay-caay ni ko nit ñi amee ma ko ci jinne yi kon suñu borom subhanahu wa taala nee na bu fekkente ne bëgg nga am muslu ci loo ragal jàngal fàtte jàngal falaxi ak naas law anzalna ala quran bu fekkente ne jàng nga ko ci gannaaw timis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jinne du la ci mënal dara ba ca fajar kon pexe bi yaa ngi noonu mag ñi daanan ko firee laata njàng mi di ñëw ñoom yore woon aminu ceddo ak jikkoy ceddo dañ taa jàpp ñenn ñi di wax ne bismillahi kablak suba min kulli bëccëg ma ko si tisbaar maradaani tamit salaamun xawlan min rabbin rahim ñen nañ gi gis wax ne bisimillahi buur rahmaani buur rahimi buur kulahum buur tajjun majjun ila axirihi ba màgg waaye daal alxuraan a ngi gën leer lawanza naa daal képp koo xamante ni yàlla dogal na nga mën ko dina ji yàq mbaa muy fàdde mbaa mu mën a sonle du mën ci yow dara ba fajar ga kon daal mbokk yi ngoog ma farax naa mi kitaab yi fii shay'in dama leen waxoon. kon mbokk yi mu ngi noonu. ñu mhm. bokk ànd sant ak suñu borom subhanahu wa taala jotaay bu rafet bi ci dawaam bu sukri ni ko sëriñ Tuubaa waxee abdi dawaam bu sukri lil janaani bi ruuxi wal jasadi wal janaani. sant yàlla bu baax a baax. di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatuhu jërë ngeen jëf. faaxa jamii al anbiyaa wa rusuli